alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursaliin wa taabi'iin laa hawla wala quwwata illaa billaahil aliyyil aziim hasbunallaahu wa ni'mal wakiil assalaamu aleykum wa rahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuh ñu ngi nuyu mbokki jullit yi mbokk yi nga xam te ni dañuy faral di teewlu jataay bi yëpp di leen nuyu nuyu jullit di nuyu bu lislaam di nuyu bu sell waaye di ñaan yàlla sunu boroom subhanahu tabaraka mu defal ñu yërmandeem ak xewalam yu matale mu mel ni nag dañuy dellusiwaat rek ci suñu jataay ndaw ñi muy jotaayu xam comme niñ ko baaxoo waxee waaye nag di jotaayu fàttali konte ñu nekkoon doon jàngale nag téere bii ñuy wax al jawharun nafis mu nekk téere bu am solo suñu bàyyee xel nag ci sunu jataay bii mujj ñi ngi nekkoon doon jàngale nit ki ci boppam sart yi war a dajee ci moom mu mën a digle mën a tere waaye mu doon xamle na it li ñuy wax diggale lu baax ak tere lu bon mu ne dañoo takkaloo kon nit ki heure bu nekkee ci lu baax xamal ne kon dumboo na lu bon waaye heure buy digle lu baax kon mu ngi tere lu bon waaye heure buy tere lu bon mi ngi digle lu baax kon dañoo taqaloo ñoom ñaar mu wax ne wayu xaramu xaraamal nañ alkibru rëy alayhi ci moom bu ne ci moom nag mi ngi dellu ci damir ba ci mu kalaf mu jullit di ab jullit jullit bi nga xam ne ni mu kalaf la moom lay wax ne war naa wattandiku rëy war riyaa ak ngistal wa kazibun ak fen namimatun rambaaj faltad riyaa xamal mu ne xaqiiqatul kibri dëggi dëggi rëy bi kasril kaafi ci kasar kaaf bi wa bi sukunil baa ak sukunul baaga bilaa xilaafin ci lu wuute kon mu ne war na ci mukallaf mi di ab jullit muy wattandiku rëy waaye nay wattandiku ngistal nay wattandiku fenn ak ràmbaaj mu ne yooyu benn baaxu ci yu xaraam la kon jullit bi war na war na koo wattandiku mu lay xamal nag ne dëgg-dëgg rëy mooy lan kon boo doon bind baatu rëy dëgg-dëgg yaa ngi koy bindee ci kaaf ak baa ak raa kaaf gi nag dañ koy maas ci suuf muy ki baa gi dañ koy maas ak sukkuun raa gi moom mën naa nekk ri waaye mën naa soppiku ci fa muy nekkee kon loolu lay xamal moo tax mu ne la bi kasril kaafi wa bi sukkuunil baa kon da kaaf gi waaye sukkuun ngay maas baa ga kon noonu lañuy bindee rëy xul waxal rafu nafsin mooy yëkkati sa bopp maa katamil xaqi ànd ak nëbb dëgg maa taazumin ànd ak màgg-màgglu waxamtil xalqi ak xeeb mbindeef yi mu ne daal boo bëggee xam dan mooy dëgg-dëgg rëy mooy ki nga xam te nii dafa yëkkati boppam ci kaw kum gis rek jàpp na ne moo la gën kum xool rekk xeeb la maanaam di xeeb mbindéef yi di màgg-màggalu ci seen kaw nee na jàppal ne kooku mooy ki rëy waaye ki rëy tamit mooy ki mooy ki nga xam te ni dafay nëbb dëgg lu tax mu ne la nëbb dëgg mooy nit ki bu dee rëy dafa nekk ci moom mu xeeb mbindéef yi kum gis yaakaar ne moo la gën kon day dem ba nga xam te ni sax bu ko nit ñi sax waxee dëgg bu juumee nit ñi wax ko dëgg da koy weddi da koy bañ donte xam na ne liñ ko wax dëgg la waaye da koy bañ màgg màggal gi muy màgg ci kaw nit ñi ak xeeb gi mu xiif xeeb nit ñi day bañ a suufeel darajaam moo tax mën nga ko wax dëgg sax du ko nangu da ciy teg pàngam ndax màgg màggalu gi muy def ak rëy rëylu gi muy def ci kaw nit ñi kon nee loolu mooy dëgg-dëgg rëy rëy daal mooy lépp loo xam te ni nit ki daf koo gis wala képp nit ki gis jamono jam ko gisee mu xool ko jàpp ne moom kat moo gën kii jàpp jamono joojee muy waxe rek rëy dugg si na ci moom kon rëy lu jar la mu ne xaqiiqatu riyaa dëgg-dëggi ngistal la dal ak yaa si fa way ñaw ya iqaaxu xurbati mooy tàbbal ak jaamu li xasdi naasi ngir jublu nit ñi waxuwata moom la daa imaamina fa sunu imaam al Ghazali mooy imaam Ghazali iksaaru taxaatin mooy bëril ak topp maxal maxaali ànd ak màgg ak màgg-màggul li kay yanaala ngir mu am fii xulubil xawmi ca xolub nit ña man manzilatan ab wàccuwaay ajibatan way aji yéeme fi raw mi ca càkku téef la mu ne la kon sagam wax na lan mooy rëy tënkal na la ko ci tënk bu gàtt dalay ñëw tënkal la lan mooy ngistal mooy ngistal daal boo bëggee dégg lan mooy ngistal mooy ki nga xam te ni dafay feeñal ak jaamu yàlla maanaam day def ak jaamu yàlla waaye jaamu yàlla gi muy def lan moo ko waral ngir nit ñi gis ko mooy wax ni imaam Ghazali wax na ne moom rëy mooy bëril ak jaamu yàlla ak màgg-màggalu ndax lan ci xolub nit ñi nga am fa wàccuwaay maanaam xolub nit ñi nit ñi naw la yéem la ndax lan ndax li ngay jaamu yàlla ndax li ngay def lu baax nit ñi yéem la naw la kon loolu mooy ngistal maanaam mooy yaa ngi jëf jëfuk jaamu yàlla yaa ngi julli waaye julli gi ngay julli dara waralu ko loolu bañ ko la xas wala bëgg ku la naw teg la ci kaw yaa ngi def ak jaamu yàlla yu bari dara waralu ko loolu bañ ko la xas ak bëgg ku la teg ci kaw bëgg nit ñi naw la naan kii kat ab jaamkat yàlla ak yooyu nga xam ne loolu da nga kaa waroon def ngir yàlla léegi nag bàyyi nga ngir yàlla nga koy def ngir nit kon loolu mooy ngistal lépp loo xam ne war nga def daal te yàlla rek tax muy ak jaam yàlla nga def ko waaye yàlla taxutul waaye yaa def ngir nit ñi kon boobaa dugg nga ci ngistal kon daal ngistal mooy bëril ay jaam yàlla bëril ay topp yàlla waaye dara waralu ko lu bëgg nekk ci nit ñi rek am wàcc waayu kawe nit ñi teg la fu kawe nit ñi yéem la te loolu amul benn njariñ nga def ko nag ngir lan ngir nit ñi kon nee naa loolu mooy ngistal kon ngistal moom baaxul ba jara wattandiku la kon nit ki kat lépp lu muy def na fexee def ko rek tax ndax ëllëg yàlla rek mooy fay boo defee ngir nit it ëllëg yàlla mooy fay kon yàlla dalay bàyyeeg ka ngir moom te kon kooku la mën a fay kon def ni yàlla daal mooy li wóor kon ngistal mi ngi noonu kon ngistal lu bon la ndax dafay yàq ay jëf yu baax ndax di nga def jëf yu baax yu bari ba yegg ci biir nga ngistal ci te loolu yàlla taxut jëf ju jëpp day yàqu ndax yàlla taxut kon jëf te yàlla tax rek mooy di am solo mhm. mu ñëw nag ci kon ci fen mooy wax lu dëgg mu ne xaqiiqatul kasi bi dëgg-dëgg fen ixbaaru ko mooy sax xibaar maa la nga xam te ni lam yakku nekkul saabitan di sax bi xawlil xolama ci waxi borom xam-xam yi waxuwa te moom xabiixun aji bon la de muujibun aji waral la isa jalaandem feeñ na laxnat zil jalaay rëbbug aji màgg ji mooy yàlla fii maa ci la nga xam te ni nu xalaatu xaleef na ko is ngir laaya miinu du giñ sax san jëmm illaa xarajta lu dafa génn kisbatuhu fenam ba min fii tukkee ci moom su ma saadat topp mu yéeg fa tablu xam mu jot alxarsa xaras allazi xaras ga nga xam te ni axlaa makaan mooy gën jaakawi barab su ma taxulu topp mu wax ana kisbatu folaan man maay fenu diw laxnatullaahi yàlla na ko yàlla rëbb fal yàlla xanu mu rëbb ko almalik buur ba subhaanahu solil naa ko lépp lu yellu ci moom subhaanahu tudd naa ak sellam min sàmma foofee maxa kulli malak ànd bépp malaaka wataktubu ak muy bind al amlaaku malaaka ya àddal ayni limub limub juróom-ñaar fukk juróom-ñaar fukk xati atan ci ñaawteef alayhi ca moom duuna may neen ci lu fen kullu xati ati nag bépp ñaawteef bi xadri jabali kem ab doj fii oxadin ca oxot xakaahu la ko nettalee sayxuna suñ sëriñ alwaali kay kilifa ga mu ne kat kon fen mi ngi noonu fen mooy lan mooy nga wax loo xam te ni ba nga koy wax yaa ko tey mu leer na lii dëgg nga wax ko loolu mooy fen mu leer na ne lii du dëgg nga wax ko nga xam ne yaa ko tey nit mën naa juum maanaam mën ngaa juum juum nag bu ñu ko waxee mooy man ngaa séen nit foog ne nit la ci misaal nga ne keede diw la waaw nga xam ne dangaa yaakaar ne diw la nga wax ne keede diw nangam la fekk foog nga ne diw nangam la kon boobaa nekkut ak fen ndax dangaa juum yaakaar loo xam te nii yaakaar nga ne diw te nekkut diw waaye nag fen dëgg mooy nga wax loo xam te nii yaa ko tey nga sos ko wax ko loolu mooy feñ mu ne nag fen nag bu génnee ci nit ki lu doy waar la ndax bu génnee ci nit ki day yéeg moom fen fan day yéeg yegg ci asmaan ca ñuy wax mu nga xam ne moo gën a kawe ci asmaan fa la fen jëm day tàmbali génn rek ci nit ki di yéeg di yéeg bu demee ba jot xaras nag ba yegg fa ca kaw kaw fa xaras fa borom bi nekk subhaana tabaaraka wa taala ci waxin nga xam ne kon fen lu am doole la yéeg ba xaras lu muy wax nag day wax daal ne ana kisbatul fulaam man maay fenu diw wax waxtur woow bu dee diw nangam la mu ne diw nangam man maay fenu diw nangam ñépp di ko dégg daal di wax ne yàlla na ko yàlla rëbb suñu borom rëbb ko ànd ak bépp malaaka yu nekk foofu ñu rëbb ko ñu rëbb diw moomu waaye loolu de moom lu doy waar waaw waaye nag yamut ci loolu de moom fen ci boppam dinañ ko bindal juróom-ñaar fukki ñaawteef ci fenam woowu juróom-ñaar fukki ñaawteef lañ koy bindal ñaawteef wu toll ñaawteef wu nekk xam nga lu muy toll kem doju uxut uxut nga xam ne dañ koy wax aw doj waaye ay montagne la yoo xam montagne la te ni nekkut doj wax da nga ñëw di yëkkati ko montagne rëy lay doon nga xam ne la muy peese moom saa rek moo ko xam waaw mu ne comme doju Uhud lañ koy bindal lu mat juróom-ñaar fukk ci ay ñaawteef anka la ko nekk ne seexu naa suñ sëriñ alwaali ka di kilifa la kon nag fen lu jar a la loo xam dafay yéeg ba juróom-ñaari asamaan yëngala aras taxaw ne man maay fenu diw daa ñaan ñu rëbb la yàlla rëbb ko ak malaayka yi fenn nag juróom-ñaar fukki ñaawteef bu nekk kem doj oxut oxut nga xam ni mu toll kon loolu jara wattandiku la kon daal fen mooy wax lu dëgg mi ngi noonu kon fen moom bona bon la kon de dañuy wàcce fii suñuy kàddu di wax ne lii sëñ bi tënk fii nag mooy wax lu nekk mooy rëy ngistal fen yëpp leeral na ko ci yeneen téere yoo xam ne nii ci la ko gën a yaatalee gën koo leeral ba mu gën a leer waaw téere yooyu mën nañ cee tudd bu mel ni ma Masaalikul Jinaan moo fa demee lii leeral na ko fa ba mu gën a leer kon dañuy yam tey ci wax lu dëgg mooy fen ni mu bonee ak ñaaw téef gi mu ñaaw téef gi muy def ci nit ki kon mu nekk lu jar a wattandiku lu jar a bàyyi xel kon dañuy wàcce sunu kàddu fii di ñaanal mbokk jullit yëpp jàmm rawatina ñi nga xam ni dañuy teewlu jotaay bi moo xam ñu nekk ci biir réew mi waaye moo xamit it nekk bitim réew xëy na dañuy bañ a lim waaye ñu ngi gis kàddu yeeg soññe geeg yépp waaye ñu ngi ñaan suñu boom fay leen yiw jëfal ñu dégg ak topp lépp lu fi jub nag nañ xam ne ci yàlla borom bi la subhaanahu wa lu fi dëng nañ xam ne ci jëmm yu xeebu yi la ñu ñaan suñu boom loolu ñu suturaal loolu ñoo dimbali in uridu ila al islaaha masataxtu ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg war nañ ko fas yéenee nañ ko fas yéenee liggéey liggéey